leen jaajëfal bu baax yéen suñu internet dem am contentement jën ak yéen comme ni ma leen koy waxee chaque jour mbégte bi nag moo di leen indil li gën a fës ci bopp xibaaru làmb ci noonu nag damay nuyu ñu ma feggool comme tous les jours ànd jukkil leen li gën a fës mbay Babacar nuyu naa la Ndeye Mbacke maa ngi lay fay di nuyu bu baax a baax suñu mbokk internet yépp yi ñuy topp ci lewtoo TV di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen ñaanal bu baax a baax weeru kooru jàmm Assane Waalo mais Mbacke di la fay di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV amaan bi te jàkkaarloo ñoom pour indi leen li gën a fës ci yenn journal suñu lamb ba mu xëyee ci xëtam mu njëkk Moustapha Gueye deuxième tigre de Fass la mu xam ne ci journal bi nag mooy mun ne kii di Ama Balde mu ngi koy xamal ne ko Modou Lo du Tapha Tine Modou Lo est plus coriace Mbaye Babacar. Moustapha Gueye moom mooy yëkkati yooyu la kàddu ci journal suñu lamb di dànkaafu ki nga xam ne moom mooy Ama Balde ne ko. Modou Lo bokkul benn yoon ak ki nga xamante ne bii moom mooy tafaatin ndax Modou Lo mbër la ma nga xamante ne bii dafa naqaree bëreel ba pare mbër la ma nga xam ne dafa ës te du ñeexum ñebbe benn xale asan dëgg la Mbaye Babacar Moustapha Gueye di deuxième Ama Baldé li mu fa wax ma nee ne euh, Modou du Tapha moo gën a coriace euh, kii di euh, Tapha donc Ama Baldé mi nga xam ne nii moom moo ko war a jàkkaarloo moom ci combat royal bi war na pare sur tous les plans nee na Ama Baldé war na sàmmee sur tous les côtés Modou et puis a plus d'expérience plus de vécu a livré plus de combat mu également ay victoire nee na daal Ama fii nii muy dem war na pare sur euh, tous les plans psychologie euh, morale ak euh, mystique yëpp war na ci pare waaye Tapha Gueye yëmul ci loolu wax na également si capacité stade bi nee na kii di Ama Baldé ak Modou Lo ay lutteurs yu populaire la dañuy traîner ay monde looloo tax ragal na le jour ci mu am ay écart de comportement yu fa am nee nag waa CNG wala organisateurs yi war nañu pare def benn sécurité bu doy ba mën a pare situation yooyu wax na également ci ay affiches yoo xam ne nii war na fi mën taxaw nee na euh, te mhm. noonu nag troisième adversaire du Lion de Guédiawaye di Balla Gaye numéro 2 ginnaaw B52 de Mbour mu teg ci ki nga xam te ni mooy Boy Niang numéro 2. Mhm. kii di Gris Bordeaux ma seen ñu ngay xëccoo troisième place ba mbay baax. kon mu mel ni Balla Gaye temps yi mooy mooy. moo jar moo jar moom la moom la gars yi moom la gars yi di wër gannaaw ba ko Gaston joxee ñetti ñetti avance. Mhm. mi ngi ci ñetti contrat yi nga xamante ni bii amel na ko Gaston Gaston jox na ko ñaari adversaire mu des benn kii di Eumeu kii di Eumeu Sène nag ak Gris ñoom ñaar ñooy ñooy ñoo ñoo taxaw ci kanamu euh, Balla Gaye ngir euh, ku ci pare rek mu jàmmaarloo ak yow. Balla Gaye instant yi moom mooy Bombo am na trois euh, contrats ak Gaston Mbengue. Ah. Euh, si na ak euh, Bombardier signé na ak Boy ñaat 2 léegi muy xaar troisième troisième boobu nag la su naa suñu mu xëy tey nee na Gris Bordeaux ak Eumeu seet ñoom noo ko xëccoo ndax ñoom ñaar ñaar ñoom ñaar ñooñu ku nekk am na revanche bu mu war a jox. Balla Gaye Gris Bordeaux Balla Gaye moo ko daane woon le 13 31 mars 2018 donc Gris Bordeaux mi ngi xaar revanche am ci Balla Gaye Eumeu moom moo daane ñaari yoon kii di Balla Gaye 2 daane la ko le 8 février 2009 daane waat na ko le 5 avril 2015 donc benn troisième victoire day permettre mu jox ko revanche soit euh, Balla Gaye soit mu nekk 3-0. te noonu nag kii di Forza averti Pakalax moom la muy wax adversaire am bi nag mooy dina ñëw jël si revanche par A u par B maanaam combat boobu ndam rek la ci bëgg dina ko gagné. par tous les moyens Mbaye Babacar. ci nu mu mën a amee victoire ci digganteem ak ki nga xamante ne bii mooy Pakala dina ko dina ko wuti ki wax loolu moom mooy Forza mi nekk fële ca Fass nee na la foo mën di jaar mu lay neex di la naqari su ma la jàppee dama lay daan ndax dañoo bëre woon nga daan ma kon su may bërewaat ak yow damaa war a fayu jël si li nga xam ne mooy sama revanche Assane. dëgg la A Euh, jëmale kii di adversaire bii di Pakala nee ko foo nekk dinaa la jël si da ma daane woon donc man dinaa jël si sama revanche nee na nag euh, bu dikk buy le jour ji benn Pakala bu gën a matir bala wala benn forja bu gën a mature la ñu gis dina ñëw ak xeer waaye dina ñëw également ak bëre wax na également ci vision bi am entre Ndakaaru ak euh, Fass nee na Gueule Tapée Fass yooyu yëpp benn koñ la donc bi da nga yéex a def ci noonu nag ginnaaw yàqu-yàqu teef ba am ci arène nationale ñii di acteuru làmb ji ñu ngi delluwaat ki defar dégâts yi fa amoon Mbaye Babacar. muy geste ba nga xamante ne bii ñu bëri mën nañ koo rafetlu ndax comme que ay niti làmba yàqoon li nga xam ne moom mooy euh, seize yu nekkoon ci arène national bu ay euh, nitu làmb jógee ne dañ ko bëgg a defaraat loolu te tamit geste bu noble la ñu leen ci jaajëfal bu baax a baax ñoom waa ARELS assan mu mel ni ñoom dañoo jóg ngir defaraat seize yi nga xamante ne bii xale yi buddi woon nañ ko foofu ci arène nationale.

mais incha allah Kaolack nag Mbaye Babacar pare na pour accueillir événement boobu noonu Mbaye. Kaolack nangaan euh, moom mi nga xamante ne bii ñoom moom moo war a daloo. boobu lay événement bu mag nga xamante ni bii régions yi nekk Sénégal yépp ñoo fay daje ku ci nekk indi sa équipe ci wàllu bëri ñu jongante seen biir waa Kaolack li ñu xamle mooy pare nañu ci côté yépp ngir euh, dalal événement bu mag boobu di drapeau chef de l'État dëgg la Mbaye Babacar benn mission de prospection la nga waa CND envoyé woon Kaolack mercredi bëri passé pour xool euh, site d'hébergement yi xool hôtel yi stade bi est-ce que mën na accueillir bi. ba ah. demee nag euh, seen mission li ñu xamle après mooy que ne euh, hôtel yi baax na stade Lamine Gueye bi nga xam ne nii moo war a accueillir compétition bi également baax na loolu daal nee nañ daal instant bii nii Kaolack pare na pour accueillir vingt et unième boobu. du xam ni ñu ngi démarré du naka noonu nag euh, Assane Ndiaye borom Bawol production ma ngay dem fee ca Thiès kaay le 3 juillet incha allah nar faa taxawal combat buy dox ci diggante booy Jobos ak ki nga xam ne mooy Pape Mbaye Mbaye Babacar. Assane Ndiaye moo tëgg boobule combat borom Baol production di promoteur bi nga xamante ne bi xale yi lukkee ko yu bëri ci loxoom la ñu jaar ma nga jëm fële ca euh, Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar incha allah incha allah bu ci yàlla àndee le 3 juillet mu tëgg booy Jobaas ak ki nga xam ne mooy Pambaay Assane. dëgg la Mbaye Babacar Boy Jobaas nekk ci Colobane mbooloo moom nag ci Ndakaaru loo jógee woon mais bi Ndakaaru fusionné ak euh, Fass. dafa jógee foofu dem Colobane mbooloo bii nag moom mooy première sortie mi war jàkkaarloo ak Pambay Pambay mu ngi nekk R100 mbooloo combat bi nag euh, kii di Assane Ndiaye moo ko tëgg waaye ci Thiès la koy amalee le 3 juillet ñu fàttali ne euh, Pambay ci victoire la jógee moom moo daane woon Boy Jaxaw le 23 décembre 2018 adversaire am bi di Boy Jobaas également ci victoire la jógee moom moo daanoon Ñang Baalo le 23 mars 2019 ci noonu nag Mamadou Seck chargé d'organisation du CRG de Thiès la mu xam ne ci journal nag mooy le CRG n'a pas de subvention ma ngay wax ñaxtu la mu bëgg nag mooy indil ko ay ndimbal fii ci CRG bu Thiès mbay baab Mamadou Seck moom li mu xamle mooy CRG bu Thiès amuñu ndimbal rawatina autorités yi nga xamante ne bii ñoo nekk biir Thiès war a jàppale CRG nee na kenn dugalul loxoom ci CRG ngir ñu mën a am li nga xamante ne bii mooy ay jumtukaay pour mën a liggéey bu baax. dëgg la Mbaye Babacar Mamadou Seck moom mooy chargé de l' organisation du CRG bu Thiès CRG moom mooy comité de comité régional de gestion moo nekk CNG bu région yi quoi. Oh, oh. maintenant moom nag euh, journal suñu laa mu tax ko dalal li mu fay ñaawlu mooy nee na CRG bi boo xam ne nii autorité Thiès yi di leen ko aider pour di ko permettre muy financer ay activités oh. moo nekk Thiès di nekk bailleur lutteurs moom rek moo fa nekk moo tax nag muy pousser euh, mbër yi fa nekk. ñuy wàññi kaase yi ndaxte jamono daa métti wax na également ci drapeau du chef bi nga xam ne nii euh, Thiès moo solo. ci noonu nag contre Alioune Seye numéro 2. pour nga mooy Kayma ba nekk Thiaroye sur Mer Mbaye Babacar. suñu bind loolu nee na dernier sens ci làmb ji gannaaw ba mu toogee at yu bari gisuñu ko mu bëre ñu jox ko Gaston Mbengue nga jox ko combat nag mu war a jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy Aliou Seye 2 suñu làmb nee na bii mooy dernière chance am pour mu mën a dellu si ci làmb ji war na ko moytoo échappé. fadila nasaba bi man la ma ba na ci def na palmarès bu baax wante suñu làmb nee na bii mooy sànni tàccoom. mooy sànni tàccoom bu dafa gëj ci làmb ni huit ans boo ko toggee bëree woo pour nga euh, adversaire boo ko ratee day méttiwaat combat bi daal moo ko nar a génne ci saako bi. Uh-huh. wala moo ko nar a ah, ah, génne wala mu dugal ko fa waaye nag booy mu ës la am. Ah, Aliou Seye de ko fi nga daal baaxul choix bi nga def daal baaxul. Issa Pouye nee na ko dinaa la jàngalaat bëre Aliou Seye na ko man du ma ñeexum ñebeem kenn. mbay combat bu neex la nar a doon. Uh-huh, incha allah record lañ jëm kii di bambam bu président association FILS la mu xam ne ci journal rek mooy danger la bàyyi xale yi ci mbedd bi sans ñu am métier loolu Euh, olof Ndiaye sax mooy naan jàngal ma napp moo gën nga may may jën chaque jour moo tax kii di Bamba nag mu ngay jox xale ay lijaa sa nga may nga may may may jën chaque jour nga jàngal ma napp moom moo ko gën ndey Mbacke andi nga baatu olof bu am solo Ahmadou Bamba boobu li euh, la ñu fekk ci record moom mi nga xamante ne bii moom moo jiite fiis moo wax yooyu la kàddu nee na bàyyi xale yi ñuy dox ci mbedd mi te amuñu benn métier dara wóoru ci loolu nag moo tax Assane euh, mbër yi nga xamante ne bii ñoo nekk en activité mu leen di defal ay formation ngir ñu mën a nekk ay garde annoncé tey jii muy amal ndaje mu mag foofu ca euh, mairie bu Patte d'Oie. dëgg la Mbaye Babacar Babou nga xam ne moom mooy président association FILS FILS mu ngi signifié formation insertion des lutteurs du Sénégal moom nag nee bàyyi bëri ci écuries yi te ñu amul métier nee loolu danger la. depuis ñu commencé FILS nag nee na formé na lu toll ci cent cinquante lutteurs ci métier garde garde rapproché garde corps bi rapproché. gàllankoor rapproché ak trente euh, trente nit ak benn wala fanweeri militaire ak benn. Ah. ci affaire sérigraphie moom nag tey war na signé benn convention euh, kii bi Macoumba Diouf nga xam ne moom mooy directeur horticulture ah. pour permettre mbër également ci wàllu mbay ñu mën ci am ñu xarañ ci ba am ci ay am na solo. ci noonu nag 4 galas 14 millions dégagés 3 promoteurs différents. Franc conquis l'arène nationale Fallou Ndiaye nag di promoteur bu moo fa teg tànk Mbaye Babacar. waaw mu ngi noonu ñeenti gala la ñu tëggoon foofa ca arène nationale luñ fa jotoon a teg ci wàllu xaalis nag Assane toll na ci fukki million ak ñeent kii di euh, Franc bokk na ci mbër mbër yi nga xamante ne bii moo fa gën a fës wante Fallou njaay tamit wane na ci boppam bu baax a baax moom mi la nga xam ne promoteur la. ñëwaat ci gala yi nga xam ne nii depuis saison bu bee ba léegi am na nañ ci arène nationale li mu ci compté nag nee na quatre gala ñoo fa am quatre gala yooyu misé nañ ci quatorze millions ñetti promoteur ñoom ñoo ko misé promoteur yi mu nekk Fallou Ndiaye mi nga xam ne nii dëgg na fa ñaar yoon euh, waa CNG seen euh, les mercredis du CNG ñoom it tëgg nañ fa kii di presse également tëgg na fa première journée bi mi ngi amoon le vingt six mars ak Fallou boobu franc moo ko jël moo fa daane woon Mor Asta Sall ñu gën ko xam ci tas yaakaar. deuxième journée bi mi ngi am le 3 avril boobu également mise bi 3 millions 600 la woon boobu tamit su franc moo fa daane woon final euh, général Malika euh, troisième gala bi mi ngi amoon. Euh, le euh, mercredi 7 avril boobu waa CNG ñoom ñoo ko tëggoon Zambala moo fa daane woon Adama Thiaw quatrième dernière gala bi fi amoon euh, mi ngi xewoon le 10 avril boobu Fallou Ndiaye moo ah, kon daal franc temps yi moom poosam poosam poosam poosam diis na. poosam man adversaire bi laa yëral rek sama fit bi xam naa ne franc nu ko kebee tuddeeti sax. bandi géew bandi géew. <laughs> ayca dëggal mañ mooy filmé lépp muy noonu Assane Wala maa ngi lay jaajëfal bu baax loolu moo nekkoon li gën a fës ci boppu xibaar yi mbay looy tàggatoo ah, li may tàggatoo xanaa tey di jaajëfal sama jigéen sama xarit la grande couturière kooku mooy Aïda Dramé borom sant yàlla couture moom ma génnee ci jàllaabe bu rafet bi bu yanji bi ma def euh, nekk fële ca Maris ci wetu terrain mobile bi euh, numéro téléphone am mooy 77 505 28 92 di ko euh, tailleur ba nga xam ne macha allah ku bëgg ñaw bu rafet ci korité bi rek gaawal gaaw nga dem seeti ko ndax kenn du moom. yaa ngeen jëf ba beneen rafet na trop di remercier di remercier Mbaye Babacar yëpp di leen jox di daje. si lundi ak jàmm incha allah. Assane tey doo sa gërëm Yacine Fall wala leen fi nekkul moo tax Yacine tey kii gërëm wala dégg leen jaajëfal bu baax yéen suñu internet ah nee naa leen dama leen di sant leen gërëm tout le temps. parce nekk suñu toogee fii chaque jour man ak sama naataangoo yi ah. leen indi li gën a fës yéen a tax di leen jaajëfal bu baax ah noonu laay def rek daal di sant sama caméraman bi Mansour Fall Yacine maa ngi lay bëggee bu baax Bamba kontaan ci suñu tata bi maa ngi koy bëggee bu baax a baax ñaane nafisatu conseil yi muy jox baax na ñu ngi bëgg ci moom lool lool lool mm-hmm. am na fi njëriñaa ah, tata ñu ngi lay nuyu bu baax a baax yàlla na jàmmam yàlla na sa jàmm yàgg noonu la mm-hmm. dañuy nuyu kebe rek nuyu suñu mm-hmm. wante tata nandite la nag nan nga koy gis noonu ah, day ajji lépp lépp lay ah, ajji tata nandite la danoo dem kër maam góor gi Njaay mu bëgg ñoo teg dil quoi <laughs> lu leer laa la wax <laughs> yaa ngi ruube nag dëggan daan mu ngi noonu Kébé Ousmane maa leen di bëggee bu baax a baax di jox dig daje internet yi leen di insha allah bon weekend jaajëf